ci teewaayu gouvernement am président Macky Sall daal dina jëmmaal mbëbët yi mu na ci dialogue national bi nga xam ni am na fële ca Diamniadio ñaar fukki fan ak juróom-benn ak ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru février bi ñu weesu. àllarba jile conseil des ministres daal dina adopté projet de loi d'amnistie boo xam ni danañ ko jébbal pencum ndawum réew ma ci biir yu ñu dëgmaa la ci boobe bataaxal ki yor kàddu nguur gi di Abdou Karim Fofana di xamle ni njiitu réew mi danañ ko jébal rapport ba tukkee ca waxtaan ya ci ab audience bu ñu nar a altine ñeenti fan ci weeru mars bi ñu dëgmaal mu di ay conclusion yoo xam ni danañ ko yóbbu conseil la ni ko article 92 bu constitution waxee ngir juróom-ñaari sage fa ne càmbar poñ nañu jàpp ca boobee waxtaana njiitu réew mi di am mbégte ci ni nga xam ni noonee la travaux yi demee mu jàpp ni dafa tax ñu mën a defaraat calendrier électoral boole ca date bi nga xam ni moom la ñu nar a amal élection présidentielle mu di ñaari fan ci weeru juin atum 2024. ca geneen fànn moom njiit réew mi Macky Sall daal na sant nguuram ngir ñu jël bépp matukaay ngir indi seen njàppandal njabootu ñi nga xam ni faatu nañ ci ay manifestations.